aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamina asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di siyaare bu baax di sant bu baax ci liggéey bi maanaam boo nu laajee ci lan mooy solos màggal si dinañ ci lott ci wax ko waaye dinañ ci wax suñ kem kàttan ndax sëñ Modou mi nga xam ne moo nu boole ci màggal gi day lépp ci ñun maanaam du diggante sëriñ ak taalibe rek sax de danoo bokk lépp mu jël bis bi daal di ne teg naa ko seen loxo bu yàqoo yéen a ko yàq su baaxee yéen ko baaxal kon kooku sasu rëy la jëmm ju mel noonu nag su jëlee bis bu toll nii boo xam ne bis boo xam ne sëriñ tuubaa moo ko moo ko tuddeel boppam moo ko wax nañ ko def. te xam nga liggéey Serigne Touba moom yomb na waaye Serigne Touba liggéey loo la jaf moo jafe te lii Serigne Touba mënu ko liggéey loo ndax ñun duñ ci bopp ñun lépp lañ ci duñ ci bopp duñ ci lépp lañ ci fun ci yem ñoo fi yemal suñu bopp waaye suñ moom yemaluñ fenn liggéey bi nag daairatu am boi sédaxen tubaab duy sangu président bi Samba Thiaré la mooy jëriñ ñi xanaa kay daa jàpp rek waaye bu doon kàddu yu jub gën a rafet moom moo ma ko gën a mën a wax liggéeyal Serigne Touba ndax liggéeyal Serigne Touba moo am góorgóorlu takkaat laxasaay yi ndax toll nañ jamono mujibun mujabun dañ bàyyi xel ci ne képp koo xam ne dañ laa war a roy moom waroo def ci yow lenn wala ngay doxe doxe yoo xam ne dañ cey xebat dara Serigne Touba ñi nga xam ne moo waral lépp te mag ñi bi ñuy ñëw si moom ñàkkul kenn ku ne am nga loo àndaale waaye nag dañoo ñëw moom fekk muy koo xam ne daa matali lépp kenn ku ne nekk ci wut yëg ne da ngay ñëw li nga àndaale lépp teewul nga bëgg loo dolli ko moom dafa waxoon ne day képp kuñ may képp laa bokkal waaye la ñuy ci yow de sama yoon nekku koo xam ne kii ñi ngi naan ànd gaang man day tax ma nangu ànd ga mooy na nekk ci loo xam ne buñ la gisee xel nañ ci sama yoon nawe ma ci waaye lépp loo xam ne doomu aadama mel na ko te buñ la gisee bëgg ma caa xeebe wala ñu yabe ca sama yoon loolee ku ko jëf ma la ko jéggal ba yomal xeew li am solo mooy buñ koy askanale it wala nga naan doon ci man wala lii la defal sama maam la gën nga jéem a baax la dara luy tax mu nangoo bokk ak yow loolu mooy la sëñ bi ñun dundu jàmbaar bu ñu jaar ca magal ma Cheikh ma Samba ñu ne fii mënut a ñàkk làmp bu ko leeral ñu ne ko nañ fi yóbbu sëñ am sot ndax fii li ngeen ko yàgg a rek béréb la boo xëyee sëriñ de ko leeral bi mu xamee ñëw na fii yoon boobu dañu koy mag ñi nettalee ba ñëw fa sànqaay gee ba yaa fa jotaay ba mu fa am am ko bàyyi fa lam fa bàyyi ci lañ xamee ne foofu koo xëyee toogoon na fa ba def fa dara am jeexital ci la jël sëñ am satu Mbàkke ci lii rek yebal ko mu ñëw fii ba rakkam yëpp ñëpp fekk ko fi sëñ Ibrahima sëñ Abdou Karim ñoom ñëpp fii daal di leer nañ kii Maalaw Moussa Maalaw toujours da ngay faral di wax naan fii bu leeree rek sëñ Abdou Khouat na ko ñëw woon waaye lépp tey jëlee nañ ci ngi lay xamal ne fa nga war a nekk yàlla di nga ak say bokk say mag gërëm nañ la. dëkk bi amoo fa kenn xaar ma yàlla lu may da ngaa ci la nga war a nekk te loolu kuy ànd ak nit loolu ngay bëgg mu ci moom nee na ànd gi nga ànd moom gannaaw aw seex yëg na ko bu baax jàpp na bu baax day moytu nag ndax dafa bari ami kilifa day yore boo xasee ami kilifa bari da nga koy moytu moo waral ni muy doxee sax mu di ko doxee waaye nag am kilifa daa na xëy na fànn ñu bari dañ koy ragal di ko moytu moo waral mu doxee ni mu doxee. waaye fam la war a teg teg na la fa dara nangam ci mbokk gi ak taal bi eh, sëñ Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Lo Cheikh Abdou Lo kàddu na lépp lépp a ngi ci biir ah soxna Moussa wax loolu feeñ na ci moom feeñ ci jataay bi. koo xoolee ko doon xamul kon da nga koy yàq da nga yaakaar rek la yi nga fi wax ci sëñ Modou mii xam ne loolu rek a nekk ci bu nekkuloon ci moom loola ci waxtu bii loola jaral ngay gët di nga wax di nga wax te di nga wax yàlla lu wér seede bu wér kon nag sëñ xam ne lay wax ci wàllu taalibe fenn li war saga laxa saay rek dem ca kanam ndax su fekkente ne sa yaat waaye ñii la féete ak mag it nawloo la jëkk ngir yow di sa yitte ñuy ca dox di ko ànd ak yow war ngaa xam ne yaa ngi ci yoon bi xeet li sag laxa saay dox dem Cheikh Abdoulaye Dieye yow ñu ngi lay beral sa nuyoo ni ko sëñ bi waxee léegi ndax soldaar bu sëñ Tuubaa la fu ñu yëngal loo xam ne sëñ la jëm muy boo ñëwee sa ca fekk taal defar rek nga cee nekk defar rek ku yàgg nag da ngay defar yàlla boole ci barke Sëñ Tuubaa defar ñun ñëpp te yàgg na ci yaakaar bu baax bi jotaan moom boo teewee rek mën nga ci jëlee defar boo dajeel sax mën na ndax xol yoo xaye lislaam moo ko fees dell ak jubóo kenn du jëw kenn ñu bokk luñ bëgg suñ ko wutee am ko day yaakaar li fi bëgg ci guddi gi lépp des na ko am incha allah kon sëñ bi nee na ñu ngi wàcce kàddoom di la gërëm. di gërëm sa waa kër sëñ Ibrahima looyu yëpp ndax bu njëkk dëkk bépp ay bokk lañu waaye fii yàlla woon lu dëkk wàcc te dëkk bépp bokk lañu kenn ku ne war na ñoom duñu saaboon rek yow waaye fii lay wàcc ba noppi dooral lu xaj na xajal ko ci ba ba ni mën a dem ngir sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu alhamdulilah la hawla wala quwwata ngi leen di nuyu yéen kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ci kàddu yi nga xamante ne bii moom la ñuy yëkkati ci kanam kilifa yi ndax bu ma nee kilifa yi rek comme niñ ko waxee léegi rek suñ Cheikh Abdoulaye bii nga xamante ne bii moo doon wax léegi di yëkkati kàddu yu rafet yooyu ñoo bokk waajur ndax suñ Cheikh Lo ak Cheikh Ibrahima Lo bi ma jur ñoo bokk benn waajur kon damay wax ne bu yëkkatee ay kàddoom ba pare sax soxlawu doon ñuy yëkkati ay kàddu beneen ba ca des mu am ab cër ci Serigne Touba boo xam ne ñun amuñ ko jot. ndax soxna muslim Mbàkke mi nga xamante ni bii mooy waajuram wu jigéen Serigne Abdou Borom Dër bee ko jur Serigne Abdou Borom Dër bi Serigne Touba ko jur kon am na ak cër bu mag boo xamante ni bii bu yëkkatee kàddoom fii ñu yëkkatiwaat ay kàddu dana xaw a diis lool ci nag olof yi dañ daan wax ne wan buru tudd loolu moo waral nit ki bu wootee ba ñi nga woote ñu wuy si la du ñàkk nga yëkkati ay kàddu ndax mooy tax ñi la wuy si xam lu tax nga woote woon kon loolu moo tax ñu ciy yëkkati ay kàddu di sant comme ni ko ñëpp waxee sëriñ Xaadim Mbàkke bi mu sëñ Cheikh Mbàkke mu sëñ Modou ñaan suñ borom yàggal la fi te damay wax ne sama digganteeg yow du ay démb la sëriñ Cheikh Mbàkke ci nekkam moo ñu boole woon ñu yàgg ànd di lépp di rafet ba egsi fii mu egsi na euh, li jara sant yàlla mooy keroog bi nga xamante ni bi yàlla dogal na ñu jàpp bés bi te ñun suñu lépp di Serigne Cheikh Mbacke Massamba ndax moom la yàlla dogal suñu waajur yëkkati woon ñu teg ñu ci loxo teñ doyloo ko ba xoolu dara feesatul suñu bët dul moom dogal xamuñ kenn ku moom ndax moom rek lañ daan àndal ci lépp lu mu mën di doon ba yàlla dogalee la yàlla dogal si moom ak léegi it euh, suñu ànd maag maag moom ñi nga xamante ni bi ñoo jàpp dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne dagg na ndax nekkatu bi waaye ci man tey jii la ànd ba gën a rafet ndax yaakaar naa ba mu jógee ba léegi amul benn ajjuma boo xamante ne bii du ma dem teewi bañ ko denc wala ajjuma bu ma jënal ba ca topp dama koy te loolu sama digganteeg moom la am na luñ seq loo xam ne keneen bokk ci loolu moom xam na man xam naa yàlla xam kon loolu lu yàgg la du tey Serigne Khadim Mbacke nii nga xamante ne bii moom la fi bàyyi ak magam Serigne du Mbacke bi ñaan suñu borom yàggal leen ci de wéral leen. te itam am nañ yaakaar ci yéen ndax e, ki nga xamante ne bii moom moo jiitu bàyyi leen fi de xam nañ ne ki ku xam nañ ne du fi bàyyi lu matul te damaa waxoon sëriñ Modou Mbacke ne ko nekkul sëñ Cheikh de ndax am na lu ngeen ci jàngat sëñ Modou ne tekk ma ne ko man de am naa lu ma ci jàngat mu ne waaw ma ne ko nekkul sëñ Cheikh damaa gis na sëñ Cheikh daa yoroon ñaari bët teg benn bi fa la ñu jëm ëllëg muy yomal fi teg benn bi fii ci àdduna mu ne ma waaw ma ne ko keroog bi ñu tàggoo wuy ji suñ Moodu na ngeen xam ne suñ seet ñaari bëtam yooyee léegi yëpp mi ko teg kon loolu nañ ko bàyyi xel suñ ne ma wax nga ma wax boo xamante ne bii boo wax bu rëy la sore la ci man ma ne ko loolu nag nañ ko jàpp nañ jàpp ne tey jii la fi gën ñaari bëtam yëpp léegi mi ko teg kon loolu ñu bàyyi ko xel bu loolu jàllee li nga xamante ni bii moo waral bis bii tey ba ñu woote ñëpp ñëw wuy si bis bii dañoo war a xam bis bi mooy lan. bis la boo xam ne du ndigalal kenn lu dul ndigalal Serigne Touba Serigne Touba ci boppam moo jox ndigal Serigne Amsatou Lo ne ko nañ koy màggal nañ koy màggal nag baatam màggal ni ko Cheikh Abdoulaye Dieng waxe léegi génne ci làmmiñu Serigne Touba ne nañ koy màggal ngaabu la ko Serigne Touba di ko wax fu dul ngaabu Serigne Touba mësta wax ne nañ koy màggal màggalu Touba sax Serigne Touba dara nañ ma sant la suñu borom waaye nañuy màggal ngaabu rek la ko ma sa wax ba mu ko waxee it sëriñ am sëtuloo la ko wax ba mu ko waxee sëriñ am sëtuloo it dane ko nañ koy def bis bu set suñ ko mënul semaine bu ne suñ ko mënul weer wu ne suñ ko mënul at mu ne te bum jéem daal ne ko ku ba bët mel na ni ba ngay door a jóg suñ ñàkk bàkkaar ba mu ko waxee sëriñ am sëtuloo la sëriñ am sëtuloo ne jamono toll na koo xam ne bis bu set nga wooteeg màggal dana xat waaye at mu jot danañ ko def bu soobee yàlla daal ne waaye man am sëtuloo mii de li njëkk a génn ci làmmiñu sëriñ Tuubaa yi mooy bis bu set fas naa yéene li des ci sama dund bis bu set ma di ko màggal li des ci dunduk sëñ am sutuloo ba nim génn àdduna kum fanaa naan lay jàng taalibe ko aw ba bët set mu ne bis bu set sëñ Tuubaa joojee mu ko doon kon sëriñ am sutuloo la mu waroon a nekk lépp nekk na ci te lu jiitu muy yabal sëriñ am sutuloo fii ba di ko jox màggal daa jaaroon ci barab bii ñuy wax ngaabu ci sàngaay bi mu fi jullee def ay lawraatam ba waraat ci fasam wan garab gi ginnaaw suuf si ak garab gi ñoo àndandoo moom la sëriñ Tuubaa wax jooy Serigne Touba wàññeekuwaat ba ci taatu garab gi ne lu waral ma toog fi bay dem ngay jooy. boppam Serigne Touba ne ko li bi toog bay dem te bàyyi woo fi dara dañ yàlla bu mel ni yow. Serigne Touba wàccaat fasu ay weer ak boppam boole ko ba gas ci taatu garab gi ba mu ko mu suul ko garab googu xob wu mas a waddal day am tuftufi daay Serigne Touba jooju. ba Serigne Touba demee ba njaareem la ne ma wooli Serigne Massamba Mbacke Touba ñu wuy si Serigne Touba njaareem. bi mu ñëwee mu ne ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko am sarak dañuy wax am sutuloo mu ne ko ma nga kooki kàddu mu ne ko damaa dem ngaabu loo xamante ni bii du te ëllëg yomal xiyaam moom laa Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko wol ma am sutu Sëriñ Masamba del si waat Tuubaa wut ndaw xëyee nga dem kooki kàddu woole bu suñu am sutu bi Sëriñ Masamba xëyee ci pajar gi di soññi ndaw li la ndaw li ne Sëriñ Masamba Sëriñ am sutuloo mi nga doon woolu fanaan si ne ci kër sëriñ am sëriñ Masamba ne ko wool ma ko mu woo sëriñ am sëriñ mu ñëw mu ne ko ku baax kat moo la doon wooloo ma ngeen jaaree ndaw lii laa sàkkoon ngeen mu war laa woo si bi ma xëyee di ko soññi la ne ma ci kër gi nga fanaan si sëriñ am sëriñ ko waaw Mbàkke bala ko sëñ Tuubaa di wax di njaareem ne maa nga leen dégg dafa daaneel aw yoon moo tax nga fanaan loolu lu mat a xam la ba mu demee wuy ji sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa yabal ko boole koog sëriñ Masamba ci diggante mag ak rakk ba ko sëñ Tuubaa di yabal si ngaabu Serigne Massamba toog Serigne Massamba déglu na Serigne Touba ba mu wax ko fi mu koy yebal Serigne Massamba ne teg ba mu yàgg Serigne Touba moom ku ne xam na ne daa xam daa xam nit ba day xam liy ñëw tey ak liy ñëw suba Serigne Touba jékki-jékki gis jékki-jékki gëstu Serigne Massamba daal ne ko ma Massamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko li ma wax mbaa daa am dara lu la ci gis mu ne ko déedéet Mbàkke loo wax dëgg la waaye am sa tudday gone te ngaabu day wel yu màggat wel yu màggat nag ku ko xamul mooy ay wel ay jaan dafay dëkk ay jiit dafay dëkk ay jànkalaar dafay dëkk mu ne ko làmp lu muy jariñ mu ne ko leeral mu ne ko am sa dooy làmp nga am ñu yebal si ko fii bi mu ñëwee bu dëkk dëkk bii ñu nekk muy ngaabu keroog bi mu ñëwee ngaabu ci sàngaay ga ñu yebal ko fii dëkk bii kenn mësu fee ñemee dëkk ku fi mas fanaan génn guddi faatu keroog bi mu ñëwee ñu yebal ko fi bi mu ñëwee guddi gi ci njëkk a fanaan ku el ginnee ñëw taxaw ci kanam ne ko xanaa yow xamoo wala laajte woo fii ku fi mas fanaan ma faat suñoon sotti ne ko soxlawu ma laa xam ki ma yabal bii fu mu ma yabal ma ñëw kuréel gi ne loolu wàññeekuwaat toog ci kanam suñu am sotti loo jox ko boppam ne ko jox naa la sama bopp adduna ak àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma dam ma bàyyi muy mbóor ni kuréel gi ne loolee jébul woon ci sëriñ am sotti loo jamonoy sëriñ Touba ba léegi mi ngi fii ci dëkk bi ba léegi di te ku sant loo bu ñu waxee loolu nga xam ci dara ndax ku sant loo te nekk fii te bokk ci ngaabu am nga ci kuréel gi ne yooyu taalibe yoo xam ne ñu ngi ànd ak yow nga xam ko am nga ñàkk koo te ku ci nekk fii ci dëkk bi te sant boo amee ñeent fukki at xam nga ne yaa ngi ànd ak jinne jinne yooyee nag jamono Serigne Touba la woon ba léegi Serigne am satuloo ñëw fii nekk bi di màggal bi suuf Serigne Touba boobee nekk bi diir bi mu fi a nekk lépp ku ne xam na ne Serigne am satuloo ak Cheikh Ibrahima Lo seen diggante ku ne xam na ko ñoo bokk wenn waajur soxnay soxna ak sëñ Modou Lo sax ak sëñ Abdou Karim waaye diir bi Serigne am satuloo nekk la toog ba benn bis mu woot sëñ Ibrahima Lo teg Cheikh Ibrahima Lo nekk guy bi mu ñëw mu ne ko Ibrahima mu ne ko Mbacke mu ne ko sagar day jege ay sa Ibrahima mu ne ko Mbacke mu ne ko juróom-ñaari pays yàlla yi pays bu ma dem gis ñu bind fa am sotti loo ne daal ne ko kon damay dem ma bëgg nga ñëw wuufal ma njaboot Cheikh Ibrahima Lo keroog ba ko sëriñ am sotti loo waxee dara lu mu lépp ci dëkk bi la fanaan si kon ku ne xam na ne ñooñu ànd gañ nañ waroon na ànd ànd nañ la ja des mooy ñoom ñaar ñooñee kenn ku ci nekk ci ñoom te nga njëkk a gis ñu di ko wax doom muy sab taaw sëriñ Masamba mii seen mag lañ ko tudd mooy ñaari si Cheikh Lo Ngabou yu dooloo ko waral ba ca des ka ca ñoom ñoo ñooñu kenn ku ci nekk ci ñoom ka topp ci ka topp ci sa taaw nga tuddee ko sa morom Cheikh Ibrahima Lo ka topp ci taawam sëñ am sëtu Lo rakam la ko tudd sëñ magam ko tudd Cheikh topp ci taawam di sama mu tuddee ko Cheikh Ibrahima Lo rakam kon kii li war a li a ànd lépp ànd kon suñ toogee ci jataay bu mel nii gis gestu surtout suñ am sëtu Lo woote jataay bu mel nii toog fa buñ gestoo gis surtout Cheikh Ibrahima Lo kon loolu waru leen a jaaxal ànd bi démb la woon tey soog a di ñaan bu baax a baax nag di sant sëñ Cheikh Mbacke comme ni ma ko waxee léegi sëriñ Cheikh ma sëñ Cheikh Mbacke kenn gënu koo bokk ci dëkk bi soxna Ndiobaloo mooy waajuram soxna Ndiobaloo suñu am sa tuloo ko ji kon moom ci dëkk bi la bokk kenn gënu ko fee bokk am ak na bi ñëpp am lu wax cër bu am nit bi am ci sëriñ Touba rek sëñ Cheikh Mbacke am na ko ci sëriñ Touba ku ne xam na ne tabe ga nekkoon ci sëriñ Massamba mi ci sëriñ Cheikh Mbacke ma Masamba daa tabe woon bay leb di jox dem na ba nit kar ko di ko laaj ngir mu làmbi poosam amul lu mu ko jox mu laaj ñi mu àndaloon ñëpp ku ci nekk ne ko li ma yoroon yaa ma ko laaj joxe ba mu jeex mu jël ab taalibeem joxe ko ci bitig ab borom bitig ba wecce ab xaalis jox ko ka nga xamante ne bii moo doon laaj bàyyi taalibe ba toog ba mu demee ba ca yoon lu ba la jóge woon di ñëw fii wala ndax bi mu ñëwee ba Daaru Musti am ku ko kar nuyoonteeg moom am lu mu ko jox mu wàññeeku taalibe yi mu àndaloon la am ku mu jox dara ne ko kañ bàyyi woon ca yoon wa demal ñu jëriñ mu dem fekki borom bitig ba lañ la nga xam ne moom lañ ko tayloo woon dongo ba mu jox ko ko ànd ak dongo ba ñu kon sabe foofu rek la mën a yem waaye tabe la tabe bu gën a wér googu góob googu tabe gi nga xamante ne bii moom la tabe mooy Serigne Massamba Mbacke jóge na Touba gii dem tey teg ko suñu Mourou Moustapha ne ko daa am tukki boo xamante ne bii da koy bëgg a tukki te ma bëggoon nga jox ma ndigalal ndigalal ma tukki la sëriñ Modou Moustapha ñaaral ko jox ko ndigal fekk sëriñ Massamba xam na ne tukki bii bu sëriñ Modou Moustapha tukkee boobu ci lay des te bëggul mu des sëriñ Massamba laaj ko ndigalal ma tukki keroog ba mu ko joxee ndigal ci tayib ne ko demal ba mu ko jógee ba mu jógee tayib ñëw Mbàkke dem Mbar dem mbar dem dem dem dem dem ngin ngi neew keroog ba mu jógee ngin ngi neew ba jëm kër sëñ Madieng Gueye diggante ngin ngi neew ak kër sëñ Madieng Gueye am na aw xuru fa nekk foofee la wëtiir ba mu duggoon la accidenté wala wëtiir ba daanoo balankaar ba tam jam sëñ mu sàmm ba mu ko jamee deret ji sotti ñu mu àndaloon ni ko da ngay dëpp sëriñ ma sàmba ne xalaatuma ko sëriñ Tuubaa ma yónni te du ma yónni may wàññee ko lu dul ne damaa egg ci kam ma yónni woon muy sëñ Madieng Gueye ba mu demee boo wax lañ ko yónnee woon ba pare sëñ ma jëng géey bañ ko jëlee foofa di ko yóbbu kaw ndax ñu sëñ ma sàmba wàcc kon tabe ba benn tabe gën a rëy tabe ba tabe ci sama kan kon sëriñ ma sàmba tabe woon na tabe woon tabe bu sëriñ ma sàmba tabe woon nag sëriñ si am Mbàkke mu faati ten tabe na ndax joxe bay laaj li ñu yor di ko joxe an na ma nekk na ma ak moom mu joxe ba oto bi mu yób bi mu daan war mu joxe ko di àgg oto doomam fekk naa ko lu benn yoon du ñaari kon loolu foofu la tabee ñu ngi sant leneen ba ca des nag mooy woote ñu wuy si la dafa nekk tey ñii nga xamante ni bii ñoo fi teew ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom ñu ngi bàyyi ay yitte bàyyi ay soxla mu woo leen ñu wuy si leen ndokk nag bañ leen woowut ci lenn lu gis Serigne Touba damay wax ne man sëñ Maodo de leen di wax ne képp koo xamante ne bii woo naa la ci lu gis Serigne Touba na te li may ñaan suñ borom moom mooy ku suma yéene woote ci lenn lu du Serigne Touba képp koo xamante ne bii topp nga ci sama gannaaw it gis may dox te leer la ne doxin wi may doxe du aw doxin ñaan naa la nga dem seeti weneen doxin taalibi yi nga xamante ne bii ñoo sukk jébbalu ci man jox ma seen bopp àdduna ak wax ma ne ma lool ñu digal ñu def loo ñu tere ñu bàyyi maa ngi leen di wax ne leen kenn koo xamante ne bii ànd nga ak man te leer la ne doxin wi ngay séntu ci sëriñ si xool nga ne doxin woowa doxuma ci nang ma fi bàyyi dem seeti beneen sëriñ wax naa leen ne dañuy tam taalibe boo xamante ni bii aju nga ci man te mas naa laaj dara mas naa laa laaj dara loo xamante ni bii lu jëmut ci Serigne Touba la bu ma la ko laajee danga laaj kenn ci yéen ku ma ci mas a laaj benn dërëm jëme ko ci lenn lu dul Serigne Touba wala ku ma ko ci mas laaj jëme ko ci leneen lu dul Serigne Touba na ñëw fekk ma fii ne ma sëñ Modou mas na maa laaj loo xam ne jëmee ko ci sëñ lu may laaj ci Serigne Touba rek laa ko jëm ndax Serigne Touba rek la ñu yaakaar moom lañ doyloo fii ak ko ñu jëm di wax ne ngaabu gii nag lu coow li bari bari ak lu ngeen fi man dégg Serigne Touba fi nekk moo fi mas di nekk te leneen du fi nekk lu du Serigne Touba ndax lu fi ne Serigne Touba kon sëñ bi maa ngi jégalu bu baax ndax su ma continuer danaa guddal di sant ñi nga xamante ne bii ñoom la ma yàlla booleel. ñi nga xamante ne bii ñooy soxna yi nekk ci kër te itam ñoom itam ñu ngi lu seen kéem laay kàttan ba li ñu jaayante woon ak ñun ñu ngi mooy bi ñu ñëwee dañoo jaayante ne loo ñu diggal ñu def loo ñu tere ñu te maa ngi lay seereel ne màggal gii ñoom soxna yi kenn ku ci nekk ci ñoom dafa jaayam am ab lim boo xamante ne bii daf koo indi jaayante ko ngir jëm sëriñ bi waaye nag di santaat Mouhamed Ndiaye bu RFM moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax màggal gi yaakaar naa ne wax naa ne leen loxoom kenn jiitu ko yónnee na fi ceeb bu bari ak ak diwlin ba pare boole ci làmb poosam boole ko ak xaalis kon moom itam ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm tey ñaan suñu borom jàppale ko te loolu koy xéewal ak sutura te la mu ne di sant ñëpp nag li ko sëñ Abdou mbay Seck mais waxee bu jëndee moom itam jàmbaar la lool mi ngi ne di taal bu Serigne Cheikh Mbacke moom sëñ Modou Karaño ñoom itam Serigne Cheikh Mbacke rek la ñuy di sant nag al Alsane Ndoye mi nga xamante ne bii mooy maire bu Ndiandène yaakaar naa suma juumu juróom-ñaari at a ngi nii yoo xamante ne bii menn at la ci Moustapha Oto bi juróom-benni at yëpp moo ko fay te menn at moom li tax fayu ko mooy daa dem dañoo dem ba war koo fay doomam bu jigéen bu ñuy wax maam jaara tollu ci ñaar fukki at juróom wala fanweeri at daal di ne li sama baay bëgg moom laa bëgg sama baay gënumaa bëgg lu baax ren jii oto bi man maa koy fay fayal boppam oto bi lu dul loolu at mu jot alsaan looyu moo yëkkati fukki junneeg ñeent fay ko kaar bi indi waa jandeer leen ku bëgg a dem dem leen amul benn amul paas amul fay benn kon loolu ñu ngi la koy seereel di la ñaan nga ñaanalal ñu kaar bi. te wax ne sëriñ moom sëriñ mënta dem te lu dul bi taalibe bi mën ta demit te ànd ak sëriñ kon ñun sëriñ si rek la ñuy la ñooy ñooy suñu lépp nga nekk di suñu sëriñ Tuubaa fii nag am na njaboot boo xamante ni bii tey loo leen man di wax li sëñ di baax baax li sëñ Cheikh Abdou baax baax bu giñ jotee sëñ Modou dañuy giñ loolu la yàlla man su may giñ giñ fi sëñ Xaadim sëriñ bu may àndal nag li ma waxoon li sëñ Bas ñëwee léegi damaa bëgg ku ma yëg ku ma man di àndal te nga yëg ñu ànd dem soo ma yëgul ma wàcc la ndax sëñ Tuubaa doo nga fi ne nag damay wax ne poligné bi benn la rek pëliñe bi benn la mooy sëñ Touba ñi ci des ñëpp dañoo ñëw lonk ci rek ginnaaw ñun ñëpp dañoo ñëw lonk ci te Serigne Touba rek lañ yaakaar kon booy àndal na xam ne da ngaa ànd ak moom te Serigne Touba tax ku ma yëg ma yëgu yëg la ku ma yëgul ma bàyyi la ku yëg Serigne Touba kon nag sëñ bi Mbàkke jërëjëf ndokk bi nga ñu yëgee ñu woote bis bu toll nii boo xam ne ëppale wuñ la ci ndax maam ji jenn la te ñoo ko bokk kon yàlla na la borom yàggal te may la xéewal may la fan lu gudd ànd ak wér ba liggéey bi fi ko bàyyi woon nga eggale ko fu kawe sa jot yaag say mag ak say rak ñu ngi baloo àq ñëpp di baal àq ñëpp lu ci dëng nag ñu ngi koy jégalu bu baax lu ci jub nag di balal suñ borom la wasalaamaaleykum